waa bokk na ci ñooña mooy ci ñi nga xamante ne si war nañoo lekk azaka ji mooy wa fi sabilillah wa fi sabilillah nag yaatu na yaatu goo xam ni mooy lu nekk ci yoonu yàlla sabilillah nag ba ca jiitu mooy al jihad mooy tey bu fekkonte ni attaqué nañ lislaam ngir bëgg koo faagaagal wala bëgg koo nërmeel imaam bi joxe ndigal ni jihaad jot na kat teg ko ci sart yi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi leerale su boobaa ñooñu génn ngir jihaad yi day war na leen a jox azaka joo xam ne moom la ñuy dimbali ko ci seen xeex boobee ngir lislaam mën a delluwaat palaasam wabni sabil mooy koo xam ne mi ngi woon ci yoon donte sax dëkkam ku fa oomle la ku fa am la waaye dem na ci tukki dog jot ndog jot ko ba amatul loo xamante ne si moom la moom la ko war a joxe ibnu sabil googu nag euh, man de maa ngi ko gëmee ci ab tukki boo xam ni mas naa koo def ci dëkk bu ñuy wax màkkatal mukarrama daje woon fa koo xam ni ab ministre de la république la ci sunu réew mi la bokk yàlla dogal mu ngi yoroon carte boo xam ni da nga koy dugal ci banque yi wala carte gàpp pour mën a génnee xaalis mu sonn lool nag dugal na waaye amoon na daal problème ba munta génne alal te it yorut dara loo xamante ne si mën na ko sax duggee ci ab restaurant ngir war koo mën a jënde ci booba eh, amoon na tuuti lu ñu yor ci leen ko génnee jox ko ngir mu mën a faj ay soxlaam comme xëy nañu ñoo ko gën a miin dëkk baa yu demee noonu ba kero muy mën a di am nu mën a jotee alalam kon xam nga ni kon lislaam vision am rëy na lu mel noonu rek ci ngay gëmee ni kon ni ibnu sabil donte dafa omle ci dëkkam ba mu nekk kooko war na koo mën a génnee ci azaka ji jox ko yàlla nag nee na loolu moom farata joo xam ni man maa ko tegal sama bopp te yàlla moo xam lépp إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم léegi nag mu am tëkk yoo xam ne nag lislaam daf ko wax ci ki nga xam ne dafa lànk nag ne du génne azaka xam nga fa leeral na ñiy génne azaka li leen yàlla di defal ëllëg ak fii ci àddina waaye bokk na tamit li leen yàlla di wan fii ci àddina laata ñuy dem alaxira bokk na ca lim leen di wan ci àddina mooy xeex ak ñoom xeex ak ñoom ak ñoom ba keneen ñu koy génne ndax borom bi subhanahu wa dafa wax ni fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatu zakat fa xallu sabilahum inna allaha gafurun rahim xeex leen ak ñoom reyante leen ak ñoom ba nu nangoo taxawal julli di joxe azaka suñ ko tàmbalee def nag kon nag bu yowoon ngeen bàyyi leen ndax yàlla ku mën a jéggale la te ku am yërmande la wax naa xadis bi nga xam ne moom la Seydina Abu Bakar waxoon ni dinaa xeex ak képp koo xam ne bëgg ngaa taqale bayna salaati wa zakat te nu xam ne azaka aqala joo xam ne dañ koo war a génne jox ko ñi ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa ci benn xadis boo xam ni abdullah na omar moo ko nettali nee na am na bis yonent bi fekk ñu toog mu waxaa muhaajirun yépp toog mu wax leen ni leen kaay ma wax leen juróomi mbir yoo xam ne day yàlla bu mu leen dal yàlla na leen ump waaye nag boo leen sàgganee ba juróomi mbir yoo yéey day ngeen jëf ko dana am juróom yi tar leen yu leen dal mu ni ba ca njëkk mooy jëf lu bon ba noppi di ko fesal maanaam siiwal ak mbon nee na loolu day bis boo leen ko defee yàlla dina wàccee ci yéen am mbas moo xam ni kenn du ko mën a faj te li muy faaga ci yéen dana bari boole ko xiif gu tar boo xam ne nit dina dem ba du am lu mu lekk nee na na ko defee woon ci ñi leen jiitu woon nu mu ko raw la koy def ci yéen boobu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy boo leen bàyyiwul dey saa boo leen jaayanteeg nit ñi ak njënd ngeen di ko natt nattin goo xam du mat wala di ko pesé pase boo xam ne du mat nee na yàlla dina leen booleeg buur boo xam ne day dana leen sonnal lool njiit moo xam ne loo leen amul lekk ko te boole ko di leen fitnaan nee na bis boo leen bàyyee tamit bañ a joxe asaka dana fexe ba téye tawam ci asamaan wala boog su tawee day bàyyi may kese ñooy jariñoo ca lafay jóge te loolu xam nga ne léeg-léeg nga dégg ci ay yenn gox ñu bay ba àggal waaye bu noppee am ngoo la di am boo xam ne bàyyi ma yi ñoo koy jëfandikoo waaye nit ñi moom duñ ci am dara nee na ñeenteel ba mooy li ngeen digle woon sunu borom su fekkee doo leen ko def danaa jële ay noon ca ca biti ñoo xam bokku leen ak ñoom réew ñuy jël seeni seeni meññeef di ko yóbbu loolu nag ku xool ci suñu réew mi xam ni Occident bi mu ñuy bëgg a rey ci lépp loo xamante ne si lu nu am la ñu jël ko yóbbu ko bitim réew nee na ba ci juróomeel mooy bu fekkente ni seeni njiit nangu wunoo àtteewoo ci téere yàlla bi danaa def dundin gu metti ci yéen boo xamante ni si dingeen jaaxle bëgg mu faju te du faju kon loolu day wane rek ñàkk joxe azaka moom musiba la azaka nag yàlla dafa bëgg buñ koy joxee mu sell la lenn bañ ca bokk loo xam ne lu koy yàq la moo tax alal ji nit ki denc ci banque su fekkente ni riba da caa bokk loola kenn du ko génnee azaka ndax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni na ngeen bàyyi riba ak lépp lu aju ci loolee te xam ne képp koo xam ne yaa ngi lekk riba wala nga koy jëfandikoo déclaré nga guerre sunu borom yàlla nag bàkkaar bu ne mën nga koo def bañ koo déclaré guerre ba mu des lekk riba moom riba moom képp ku koy lekk mooy attaqué nga borom bi guerre te yàlla moom ku ko ku ko ko ci xeex yaakaar na yow rek yow yaay mujje daanu yaa ayuha alladina amanu taqu llaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'uus amwaalikum laa tazlimuuna wala tuzlamuun bokk na ci fitna yi nga xamante ne si ñàkk génne azaka moom lay waral ëllëg yàlla mi ngi ñuy misaal wala boog di ñu nettali ci alquraanul karim nee na gaa yi nga xamante ne si day dañuy denc alal di denc oor di denc xaalis te duñ ci génnee alal duñ ci génne azaka ci yoonu sunu borom subhaanahu wa yow yonent bi ñooñu day bégal leen leeralal leen ni leen bis dina ñëw boo xam ni alal jooju day dinaa ko def beteex boo xamante ne si day day ruy ma di ko ñaas ci seeni kanam di ko ñaas ci seeni wet di ko ñaas ci seeni ginnaaw boole ko di leen naqaral naan leen lii mooy li ngeen dencoon te bañ cee génne azaka kon nag mos leen seenu denc walla walladina yakniduuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yowma yuxma alayha fi naari jahannama fa ma kanaztum li anfusikum fa duqu ma kuntum nettaliwaat ba tey ni bul jàpp mukk ni ñi nga xamante ne sii dañuy denc alal ji ma leen jox te xam ne man maa leen ko séddale ndax ma naa koo jox keneen waaye nag ma jox leen ko bul jàpp ni day ñooña li ñuy def lu baax la ci ñoom xamal leen ni leen lu bon la ñuy def te nañu xam ne alal ji ci man lay mujjee ndax man yàlla mi leen ko joxoon maa ngi koy jëlaat wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadlih huwa xayran lahum bal huwa charrun lahum sa yutawaquuna maa baxilu bih yowma alqiyaama walillahi miraasu samaawaati wal ard wallahu bima taamaluuna xabiir bokk na ci azaka li nga xamante ne si moom lay def doomu aadama ci ñàkk ko génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis nee na ëllëg day ñi nga xamante si danoo yor ak jur moom ci ak jur la ko misaale woon nee na yàlla subhanahu wa taala day jël jur googee teg ko bu fekkente ni ay giléem la ñu yeew ko ci benn barab giléem ya di daw di ko fël di walbatikuwaat di ko fël di walbatikuwaat di ko fël bu dee ay nag la noonu lañ koy def di ko mbëkk di ko romb di ko dañ ba ilaa yawmil qiyaamati ñu naan ko lii di la mbëkk ka romb di la dañ day mooy alal ji nga dencoon te lànk ni bañ caa génnee asaka kon loolu it dafa bokk ci e, mbugal yi nga xam ni koo xamante ne si du ko def loolu moom moo ko ciy fekk zakat wax na ni mbir la moo xam ne bu ko yàlla bu ko nit ki génnee dafa lebal sunu borom subhanahu wa taala te ku lebal yàlla bu ëllëgee di ko fa fekk yàlla fay la ko yàlla dafa wax ni wa aqimu salaata wa aatu zakat mooy li mu doon wax ci njalbeen gi nii azaka moom fu koy fu yàlla tuddee taxawale leen julli teg na ca wet ga nii dee leen joxe azaka mu ni wa aqridu llaha qardan xasanan lebal leen yàlla lu rafet loolu moom mooy azaka ji buñ koy génnee bul xool li gën a yées ci sa alal nga di ko génnee waaye xoolal li digg doomu war a boroom xam-xam yi wax ni bu fekkente ni or la buñ ko calculer ñu xool ni kat gramme bi mi ngi jar nangami kara dix-huit wala vingt wala vingt et un nga xool bi nekk ci digg bi ñu xayma ci loolay génnee ko azaka waaye bul xool bi gën a néew gën a suufe nga génnee ko azaka nu su boobaa du gënal islaam moo tax yàlla ne wa aqridu llaha qardan xasanan mu teg ci nag ni lépp loo leen defal seen bopp ëllëg boo leen ñëwee fii ci man di ngeen ko fi fekk ma ful ko nag fay leen ci loo xamante ne si dina kawe seen njort boole ko jéggal leen ndax man kat ku mën a jéggale la wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa azama ajran wastaxfirullah inna allaha gafurun rahim génne azaka dafa bokk ci liy farataal ak luy defar alalu doomu aadama ji tey ci misaal bu fekkonte ni nit ki dafa am ab immeuble boo xam ne daf koo teg ngir di ko luye luyees boobu mu génne loola moom mooy la muy génne ci biir loolu lay xayma bu ëllëgee génne ci azaka waaye du caagéen ni bâtiment bi ci boppam la ñuy natt ngir génnee ko azaka déedéet aslu boobu du génnee azaka naka noonu tam bu fekkoon oto la boo xam ne da koy liggéeyee du caaga ni oto ba moom mooy génnee azaka waaye la muy amee ci biir oto ba di ko dajale loola su fekkante loolu moom mooy li nga xamante ne si moom lay génnee azaka azaka dafa bokk ci mécanisme yi nga xam ni dafay xeex ak ñàkk ci ab société ndax société boo xam ne dees ñu ko génne société boobu dafay bëri ak noonoo seen biir bëggante du fa am soppante it du fa am moo tax yàlla subhanahu wa taala waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko na nga waxtaan ak say saxaaba ak mboolem jullit ñi wax leen ni leen li leen yàlla jox mën na ko jox ku nekk ndax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni moom mooy ci boppam moo tànn wërsëg jox ko ko neex wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq yàlla moo xool sàmba jox ko lu baree bari bari xool demba jox ko lu néew xool ma xujja xañ ko ba desetu dara waaye nag mu xam ne nag ka mu jox sàmba moomee yor na wërsëgu mu xujj nay génne ci alal jooje di ko ko di ko ko sédd ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax wa fi amwalihim xaqun lissaaili wal mahrum kii yalwaan di laaj dafa am aq ci sa alal kon nag na ko ko jox wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa